seen revue de presse Master ngir bépp jumtukaayu bureau Mamadou Mohamed cin fuqul bënnul yax ba fa ne woon ne mër loolee am ca camp militaire bu Thiès ubbil le quotidien bataillon blindé magasin ba ñuy denc ngànnaaye juróom-benn fetal ñoo réer ne mër di ñaari M16 fetal yu gudd yooyee ak ñeenti pistolet automatique journal bi nañu yëf yi dafay soog a feeñ waaye càcc ga wéer wala ñu génn ca la amoon ca lañ ci ubbi ab l'enquête di dox di toppi fetal yooyee ba demaat ba gisaat ca leneen mu di ñaari yoo xam ne fekk ko ci mbedd mi te fetal yooyee bokkul ne loolee kenn xamul kan moo leen génne kenn xamul it ci yenn jamono lañu leen génne jamono ji yéene kaay bi nañu benn soldat première classe moom la ñu ci joxar bi baaramam tuuma la tax càcc gi yomb moo di ca bataillon blindé bu Thiès amul benn yorin bu baax ci anam yi ñuy dencee ngànnaay gi du benn contrôle bu baax bu ca am li amoon ca Medinatul Salaam di kër becca cuun nga ca Mbuur yéene kaay yu bëri xëy nañu ci dellu siwaat populaire xëy dikkaat ak ñun ci jàppante ba demee woon ak li indi woon jàppante ba ba cantaakoon yi rey waa ji di Pape Ababacar Diagne ak Baro Sow Abdoulaye Diagne di mag wala rakk ci Pape Diagne di nettali waa populaire yëf ya ne mu demee waa ji di xamle ne ba ñu yegsee kër Cheikh Béthio Thioune dañoo fekk bunt bi tijjeeku ñu toog yëkkati foofee suñuy xasaay di jàng ña ñu àndaloon ñaar ci ñun rocceeku dem seeti kii di Matar Sow di kenn ci bëkk néegi Cheikh Béthio Thioune yi wax ko ne ko cheikh bi moo ñu yëkkati waa ji xamal ñu ne cheikh bi jamono ji amul ak jot ñu taxaw di wax fa la ñu gisee ay nit ñu génnee ci kër gi yore seeni jaase ki paaka ak i peel ba ci ay sémmiñ sax waa ji ne ko dikk dal ci suñu kaw jàppanteeg ñun ca la ñu gaañee kii di Bara Sow mu jële ci ay gaañu gaañu ju metti waa ji di ne kii di Bara ba ñu ko gaañee ba muy raam di dem la mu ñu doon wax moo di dem leen ca benn waay bu ñu naan xaadim ndeela moom it génnee ca kër ga indi fetalam di ko dóor ci kaw nit ñi xaadim ndeela moomee waa ji ne moom moo faat papa Ababacar Diagne journal bi di populaire nañu kii di Bara dafa meloon ne ku xam ne bu demee kër Cheikh Béthio Thioune di dellu siwaat ndax réunion ba ñu doon amal ngir dem seeti Cheikh Béthio Thioune ña ngi ko doon amalee ca kër papa Ababacar Diagne ba ñuy dem la leen waa ji wax moo di ñoo ngi dem ngir gisi cheikh bi jàmm moo ñu yëkkati waaye leneen mën nañu fa fekk yéenekaay bi nañu na ma ko waxee noonu la demee ba muy dikk ndaalewul bakkan keneen kiit di papa Ababacar Diagne journal bi nañu moom doom ji dafa meloon ne ku xam ne baayam du dellu ndax ba ñu gisee toog waxtaan ci seen biir pare seenub réunion dem ngir seeti Cheikh Béthio Thioune ba ñuy dem kenn ca doom ya ña ngi ko bàyyi ca kër ga muy jooy jooy yu mitti direct info dikk ak ñun ci li Bara Sow wax ak i mbokkam laata muy dem kër Cheikh Béthio Thioune la mu wax foofe moo di ñoo ngi dem seeti Cheikh bi jàmm moo ñu yëkkati waaye lu ne mën nañu faa fekk ñu fekk ci a jug mu di Cheikh Béthio Thioune ba ca Thiès journal bi nañu prisonnier ya nekk ca kaso ba ndax moom prisonnier de luxe la du xat-xatloo cib lal bañ na ko ba duubul lii la ko ëndil teg ci jël frigo bar tegal ko ci ngir muy mën di naan lu sedd te yëf yi yamul foofee ne lu jege téeméeri prisonnier jëlee nañu leen ca kaso bu Thiès tasaare ci diggante kaso bu Njaareem ak bu Mbàkke loolee yéen bi nañu leen ci jublu moo di wàññi tàncaloo ak xat-xatloo gi am ca prison bu Thiès Sénégal njiit la Macky Sall ak ni dafay dooleel ak nguur enquête yéen kaay moom xëy ak ñun ci wàlli koppar lu toll ci fukki milliards ak ñeent moo ne mes ne menteng ci jamonoy fesman bi journal bi dikk ak ñun ci looleeg léexóor ga ca laale jëmee ci appel entrant yi di woote yu jóge bitim réew di dugg ci réew meeg la ci Abdoulaye Wade dogaloon observateur moom xëy dellusiwaat ak ñun moo di la tax Macky Sall munta audité Karim Wade càmbar doxalina koppar yéen ko dénkoon moom Karim jamono ji la muy fexe moo di Pape Diop ak ñi mu àndal am lante ak wàllu justice bu ko defee du ñu tal dara du dul yéeg di wàcc ñu wàcc ci làmb ji ubbi Leewtoo yéenekaay Garga Mbossé daan na fëgala na bi nañu démb la woon ca Iba Mar Diop technique la Garga Mbossé wan fëgala ci combat bi combat Zos ak Boy Niang taxaw na Leewtoo yéenekaay xamal ñu ba tey nañu kii di Gaston Mbengue moo fa jaar ñu jaari foofee seeti Double Less bàyyi Triple Less di Balla Gaye 2 Double Less ci xët mu njëkk sunu làmb mu fay xamle ne Gaston Mbengue jot naa jokkoo ak moom ngir ñu wax ci 2 ak Eumeu Sène ci biir waxtaan bu mu séq ak waa sunu lamb gars yi laaj ko ne ko kii di Moussa Gningue sorcier de face ba woon nee woon na gàllaaj gi ngay mujjee jox Balla Gaye 2 buy bëre gàllaaj googee li fekk yaa ngi ko koy jox Balla gay du gaaw a daanu duuba lees bàyyi triple lees ne leen Moussa Gningue wax na dëgg te gàllaaj googee jeexagul li ma ci yor du jeex duuba yamu ca ndax nee na yéenam moo di doom ja triple lees Balla Gaye 2 takk ngemb ba tekki ko te dootu déggati muñal